ndigal li nag mooy li nga xam ne bi yàlla defee nawet bi am ci dëkk bi ci réew mi ak ci dëkk bi Touba gis nga def ni mel ci biir loolu nag bi sëriñ bi di yëkkati addiyee di ko def ci liggéey bii comme na ma ko leer la woon ci njëlbeen ga ndax xam ngeen ne njëkk na cee joxe deux ginnaaw bi bokk taal bi murid yëpp ñëw dajaloo di indi ñii di indi ci kuréel gi nga xam ne taxawaloon na ko euh, dénk ko waa Hizbut Tarqiyyah ak waa daayira tubaa tubaa ci kanam ak waa commune tubaa Mosquée mu boole leen doon leen liggéeyloo ci mbënd mi ci biir loolu itam sëriñ bi waxoon ne bu demee ba liggéey bi àgg xam na ne am na ñoo xam ne seeni kër kër yoo xam ne bu fa bu nawet bi dellusiwaatee itam nu mën a demee dana génn ci kër yi xaj na nag mu matale mu matale ñëpp dana jafe waaye moom ci at mu jëkk nii sas sasoo na ci ñaar kër yoo xam ne euh, ci yoon Touba Belel wi fa la ko bëgg def dimbaloo ko taalibe Serigne Touba yi nga xam lor nañ ci ci biir loolu yi nag yàlla def ba mu ci njëkkee joxe deux cent soixante millions taalibe Serigne Touba indi fii lu bari indi ci moom lu bari ba nga xam ne Marista wax ne li jëm ci lañu recensé woon mooy fukki ju fukki junni famille ak benn li ko war def la ca desoon nekk trois cent soixante millions mooy li Serigne bi mujj joxe barki démb mu wax nag ne li fi taalibe yi indiwaat ndax taalibe yi moo xam ngeen ne duñ duñ wàcc liñ fi indiwaat nag loolu la jël bëgg koo tàmbalee kër yére ci biir lool nag yéen mu tànn leen wax leen ne da caa tànn juróom benn fukki kër ak juróom benn jox leen ko ngir ngeen ànd ak moom ci liggéey bi mu ne na kon addiye yéen doon dajale ngir di ko indi ci moom ngeen necc loolu ba liggéey bi àgg ngeen door ko indiwaat ci moom kon loolu mooy ndigal li nga xam ne sëriñ bi sant na leen ko te xam ne rek nangeen ngeen ci góorgóorlu bu baax te xam ne bu ngeen ci defee yitte ak positif lu ci waay def rek boppam la koy defal ndax liggéey sëñ Tuubaa moom amut amut amut amut amut wàcc te waxoon na ne xam ngeen waxtu mu leen santee def xam ngeen nu may xameen def ngeen ko wala defuleen ko ñu ne ko dee Mbàkke mun ne waxtu moo sante nit def day am lu jug àndak ak moom bu jëfee ndigal nag mu dëkk ak moom bu jëfewul ndigal la mu dellu si waat ci man dima xamal ne dem naa waaye amu fu ma ne kon nag yéen waa ñaari réew yooyu di Amérique ak Canada sëriñ bi nee na nañ xam ne kenn génnu ci ñaan daal addiyee ju ñu war a indeeti ci moom nañ ko def ci foofu ba mu àgg ñu door ñu door ñu door ñu wàcc moom kon nag sëriñ Mamour yow yow mu fi teew ak mboolem bokk taalibe yi fi teew te jot fenn nee na keroog yoon koy siyaar la leen ko waroon wax sax waaye ñor na ko lool ndax woo na ma ci ay yoon yoon yoon mm. yoo xam ne ittee ma kon yéen loolu nee na mooy seen taxawaay ci liggéey bi la cere si nag ndigalee loo xam ne joxe ne ko ndax kuréel gi ñu ngi ci mhm. mooy li wër jumaa ji ndax neen la bëgg ñu defaraat ko ba nga xam ne ndox dootu fi accepté mhm. loolu ak beneen liggéey boo xam ne da koy def ci biir jumaa ji mhm. loolu buñ demee ba ci weeru janvier rek dana ko leeral te santeeg techniciens yi ñu ngi ci liggéey boobu ba tey ñaari fa ñett yi sëriñ bi ñu ngi koy soññee ndax wax na ci wax ju baati ne joo xam ne ku ko dégg rek nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko sant kon nag yéen moom lay seen wàll ci liggéey bi mooy ngeen jëme ko fii ñaan daal bu fa addee jugee ti ñëw ci moom te liggéey bi agut incha allah rek bu balaa ma ñaari ay bis danañ leen jox plan yi ndax kër yi ni muy bindoo du doon kër yu rëy ñaari néeg ak salle lay doon ak am na ci yoo xam ne dana am salle ndax dafa wax ne juróom fukk kër yi nañ ko def kër yu am salle téeméer yi ak ju ak ak ak juróom fukk hmm. ñu def ko euh, boobu centimètre hmm. ak waañ ak wanagu public hmm. noonu la liggéey bi di tëddee incha allah itam kuréel gi nga xam ne ñoo doon saytu loolu itam ñooy taxaw liggéey bi buñ demee ba àgg ci li ñuy def ñoo koy taxaw liggéey eh, ànd ànd ko yéen leneen la suñu bor def ñoom ñoo koy taxaw bu àggee itam comme ñoom ñoo doon ñoo doon recensé ñoo doon recensé kër yi xam nañ fa mu gën a métti ak ñu ci gën a loolu boobaa itam ñoom lañ koy ñoom la sëñ bi di jox ndigal ñu segg ko saytu ko seen bopp ba nga xam ne ñu si gën a tumuraanke ñoo ñaa ci jiitu kon daal loolu mooy ndigal li am naa li nga xam ne rek yitte yitte boppam nag nee na amatul jën yitte jur moom mooy li jëm si jumaa ji ak li ko wër ci la nekk suñu tool yi yëpp nag képp ku di taalibe jox nañ leen ndigal ñu ànd ko kuréel gi nga xam ne sëñ bi taxaw na ko mu nekk ci ba ni ko suñ bëggee moom ndax suñ tubaab moom la Cheikh Ibrahima daa wax rek du santaane mukk am te du ma sant mukk lu ma du def waaye lépp lu mu santaane lu ma luy am la kon la ma waxoon ci jumaa ji rek ne bu ngeen ko defoo jéem bindeef dana ñëw defar ko nañ xam ne kon lii sëñ bi santaane ci jumaa ji ku dégg lam ci wax dañ ci njëkkante bu baax feex ba kenn du la ci jiitu kenn du la ci man kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp